bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk julul yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla na nu yàlla may dund gu barkeel yàlla na nu bokk fekki déwén toogoon nañ fi daaw defoon fi waxtaan wu demee ni wii nuy bëgg a def ñaanoon yàlla mu may nu nu fekke ren baaxe nanu ba nu fekke déwén ñoo ngi koy ñaan yàlla na nu may nu fekke déwén bii di ñëw ñi ko fekke woon daaw te wuute ko ren ci tukki yàlla na ñibbi jàmm ñi ca feebar yàlla yàlla saafara leen ñu ca faatu yàlla yàlla yërëm leen euh, maa wax ñu teggil ma fleur bi ndax day tax duma gis ñii bu tege woon fii dañ koy teggi ndax duñ gis ñii looloo waral bu ajjuma imaam taxaw ci minbar bi ndax muy gis ñépp ngeen baal ma ci wàllu wow ndax ci mbirum jàngale la bokk daanaa fi fekk sama sëriñit Omar Kata Dieye bu fekkee mi ngi fi waaw maa ngi lay nuyu sëñ bi kee waajuram moo ma jàngal alxuraan alaaji Omar Kata Dieye male kon nag maa ngi lay nuyu di la jox cër waaw noo bokk jenn daara bàyyi alaaji mag jéy moo doon jàngal tabaarkàlla kon nag maa ngi lay jox cër baax a baax summi naa samay daal lu nuyu la teggi sama mbaxana fële nangul ma sama ziyaar mbokk yi maa ngi jël sama nuyoo teg ci nuyoo ñu ma jiitu ñëpp ndax niñ koy xame ba man koo benn bennal mën naa koo ñàkk a xame noonu ba di ko benn bennal maa ngi jël nuyoo jigéen ñépp nag toj ci loxo yi soxna jeetaal di yëg ni ñuy sonn ci bis bi pour mu am ñoom jigéen ñi xam naa su ma sañoon sax semaine bu jot moo yónnee leen lu ñu tuddee vocal ne leen jaageen jëf ak na ngeen def waaye xam nga sëriñ moom laa la xam doy na di am mbégte ci teeru gi nuy teeroog ni muy doxe lépp rek di jaajëfal suñ jaatigee maas eh, garde du corps <laughs> yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën koo aar di jox cër nag sama ñii toog ak man ci taabal ji tey def lii may def ñu yéene ma tuyaaba tax ñu jox ma kàddu gi ngir may def ndax ma am tuyaaba yi ci liñ doon def yal na yàlla fay leen yéen ñëpp fay mboolem ko ne ci saal bi suñu tomb ren mi ngi jëm ci lu ñuy tuddee ak njabar ak jabarkat mu ñëw ci waxtoom lool ndax njabar ak jabarkat daanaka mën nga ne nit ñi lu bari ci seen dund foofu lañu ko jame léegi ba fi ne boo nekkoon ab jabarkat tey balaa ginnaaw ba ñu tàmbali la jaraan ngay naxe rek xawma fii de waaye Sénégal dem moom dox na fa lool te maam Cheikh El Hadj Malick borom téere bii ci sama wet daf daan wax ne bàyyi leen di feebar di seetib sëriñ ñu ne ko nu ñuy def mu ne seetib doktoor dana la faj te du la booleeg say bokk mu ne waaye boo fi seetee maaman yii boo nuyoo ba noppi ñu la li la dal diwa la ko def booy nuyoo rek ñoo li la dal diwal a ko def kon nag waxtaane njabar ñëw na taaxam di loo xam ne li feeg jullit bàyyeegu ko mu ngi ci danger bu rëy a rëy ab jullit daa war a fexe ba bàyyi njabar ñàkk gëm ak jabar gëm sunu borom subhaanahu wa taala bàyyi ko sa bopp ndax faatoo gëm-gëm moo gën dund ak ñàkk gëm-gëm sama tomb bu njëkk mooy lu dig njabar alayhi salaam daana wax ne ak njabar mooy lii fekk nit mu ne ci dara mu jële ko ca loola indi ko ci leneen nee na dañ koy jëfandikoo di ci dimbandikoo seytaane nga ànd ci ak moom mu defal la li nga bëgg a def benn mu téelu say tànk ngay soox mbaa say bët ngay toxoñu mbaa sab xol muy tëli tëli di métti waaw alam tara ila alladina uutu nasiban min alkitab yuminuuna bil jibiti wa taaxuut yàlla nee na bu amoon ku ñu war waaru ci moom mooy ki am ci alxuraan wàllam te jullit yaakaar naa boo ne pëkk-pëkk am na ci alxuraan wàllam am na ñooñ boo leen tarloon alfaatiha fi ne macha allah ñu tari ko suuratu naas ñu tari ko alfalax ñu tari ko xul wallaahu ahad ñu tari ko ba tabat ya daa fala nogay yem moom tabat ya la yem waaye ki ki mokkal tabat daa ba suuratul naasi boole ci alfaatiha yàlla nee na bu amoon ku ñuy jaaxle mooy kooku am ko ba noppi di sol aw dàllam di jabaraani li muy tekki mooy ki am loolu moom mën na tëdd nelaw kenn du ko mën a jabar bis boo solee saw dal yi jabari nag ñu jabar la waaw mu ne loolu moom bu doon lu jaaxle dana ko jaaxal alam tara ila lazina uutu nasiban min alkitab yuminuuna bil jibiti wa taaxuut waaw wa yaquluuna lillazina kafaru haulaai ahda min lazina amanu mbokk yi njabar yàlla na ci yàlla musal kon mooy ki fekk kuy dem nga jële ko ca lam nekkoon yóbbu ko ci leneen danaa ci ñëw ci kanam nga fekk jigéen ju bëgg jëkkëram nga fexe ba mu bañ ko nga fekk jigéen ju bañ mataar nga fexe ba mu bëgg ko allahu akbar nga fekk ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi di ànd guddeeg bëccëg nga fexe ba ñuy xeex jabarkat yee koy def jabarkat yi ñoo koy def waaye yàlla nee na ku am dara ci alxuraan lu mu tuuti tuuti tuuti soo ci jafandoo kenn mun laa jabar li fekk jabaroo kenn wa maa hum bi daarrina bihi min ahad illa bi sama tomb njaareel ndax ak njabar am na ndax ak njabar am na ñu jàng xam-xamu mbindum càmmooñ te gëm boroom xam-xam ya nekk foofa léeg-léeg ñu weddi njabar weddi jinne waaye ñu jàng mbindum ndeyjoor muy alxuraan te gëm ko ñoom xam nañ ne jinne am na ak njabarit am na alxuraan nee na wattabau ma tatlu shayaatinu ala mulki suleymaan wa ma kafara suleymaanu walakin shayaatina kafaru yuallimuuna nnaasa sihr wa ma unzila ala almalakayn bi baabil haaruuta wa maaruut wa ma yuallimaani min ahadin xatta yaqula innama nanu fitna fala takfur fa yataallamuuna minhuma maa yufarriquuna bihi bayna almari wa zawji wa ma hum bi daarina bii min ahad illa bi idnillah sunu borom nee na seytaane yi ku mën a njabar ñoo la ko jàngal da ngay dégg ca sunum réew ab jabarkat buy làqu ci ginnaaw ab sëriñ ca sun sëriñ sa dafa bëgg ñu gëm ko dong waaye sëriñ ba jàngal ko ko waaw moo tax alxuraan ne wa maa kafara suleymaanu kaccat ci suleymaan ak njabar moom dindi ci suleymaan ba mu set ak njabar nanga ci ca dindi suleymaan ba mu set kon nag di wax dara loola te di ko jiiñ ab sëriñ ca sëriñ sa yaa nga leen di tooñ ndax amuñu avocat rek waaye luñ nekk ca ci Suleymaan ñoom duñ jóg di ko def yàlla nee na dafa wàcce woon ñaari malaaka benn menn maa nga tudd Haaruuta menn maa nga tudd Maaruuta lu tax ñu wàcc dañoo ñëwoon ngir jàngale ak njabar lu tax ñu koy jàngale dañoo bëggoon nit ñi xàmmee diggante njabar ak mujisa maanaam li yónent di def ak li wëyu wëyu di def ndax lu yónent di def rek seytaane mën naa def lu ko niru toogoon nañ ci benn barab ba mu yàgg waa ji day jékki rek ni nii sa sikkim bi rek génn dix mille yow mii toog nii lay def rek génn dix mille jox la ne la demal jënd boisson yàlla xam na ko ñëpp di xool loolu muy def noonu fi nekk seytaane ku ci dimbale mu door koo man te fa muy jaar buñ la ko waxoon nga sol sow daal dem ñibbi waaw ndax daa am yu bari yooy jaay seytaane nangu ko door laa defal loolu foo lambee si commune rek seytaane jox la dix mille <laughs> nee na bi ñaari malaaka yi ñëwee di jàngale ak njabar pour ñu xàmmee ko nit ñi def ko occasion di ca jàng nu ñuy taseb sëy yàlla mu ne au lieu ñu jàng njabar gi ba xam ko xàmmee ko man koo moytu far ñoom ñu def occasion di ci def nu ñuy tasee ab sëy moo tax ci njabar gi ci gën a yomb mooy nu ñuy tasee ab sëy moo ci gën a yomb <laughs> danaa ñëw ci kanam su ko jigéen ñi xamoon kenn du def tànku neen di dox fu am suuf kenn du xàqataay ca kaw kenn du def bopp neen rawatina timis même ci biir kër rawatina timis kenn du ci fóot li ngay jiital weer ko ñëpp yi siin kenn du jël taar boobu ñuy nëbbu wékk ko ci sab lal ma yem foofu ba ci kanam <laughs> waxaalu mahma taatina min bihi min aaya li tasxarana biha fa ma nahnu lak bi muminin gaa yaa ko waxoon seenub yonent loolu mën a indil pour bëgg noo njabar du tax nu gëm la maanaam kon ñoom dañoo jàppoon ne yonent ya la ñuy wax xeetu njabar lay teg mbokk yi sama tomb bu njëkkoon moo doon loolu bu ñaar bi moo doon ndax njabar am na walla déet indi naa ñaari tegtal ci alxuraan mu ñëw indi tegtal ci hadiisu alayhi salaatu salaam an ummina Aïcha radiallahu anha qaalat suxira rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xatta innahu la yuxayal ilay annahu faala kaza wa lam yafal bu yàlla bëggee jàngale ak njabar te lu muy jàngale ci sunu yónante ba la koy jaarale sunu yaay Aysa nee na njabaroon nañ ko moom alayhi salaatu salaam ba léeg-léeg mu ne def naa nangam fekk defu ko ca la bi rabbil falaxi wàcc ak bi rabbin naasi bi rabbil falaxi ak bi rabbin mu jàngaleen ñoom ñaar lawoon ca moom ci njabar dañ kon nag nun kay ndekete kon nun tam loolu mën nañoo dimbali mm-hmm. xam ngeen ca Sénégal benn sëriñ bu ñu daan wax alxaaji Ibrahima Sakho ñu bari dégg nañ ko musta naan aspirine musta naan nuwaakinin musta ñakku musta pikiru musta naan siro kere ba mu feebaree ñu ne ko hôpital mu nekkoon ngeen tooñ ma lu tax nee na lu ko ma saan rek mu jël kaas bi rek bi rabbil falaq bi rabbi naa si ne ko tépp dem liggéeyi <laughs> da koo gëmoon boo gëmoon ndax affaire bi boo ko gëmee dafa am lu muy def ci mbàkke dafa amoon ñaari ñaari jigéen ñu demoon ci suñu fàllu ne ko dañuy jaay ci marché bi bëgguk ñaan sëñ fàllu cof as cuuf ca cuufam soose def ca la muy def jox ku ne kenn ko avant muy àgg mbàkke la ko sànni nee nañ sax fi ko sànni fa la Sonatel ba nekk léegi Sonatel Mbàkke booy génn Mbàkke jëm Tuubaa ci sa góor si ne sonaateel bi nee nañ foofa la ko sànni woon ñu ne kon xëy na peut-être moo ñaan ngaa nangu ba def fa Sonatel <laughs> yàllaa xam waaye ka ca des bàjjan la ci man yóbbu cuuf sa su xëyee na ko ca place ba puy denc la ca des bu xëyee na ko ci place ba puy denc la ca des yàlla xam na dafa mujj jég jigéen ñi dañ koy rang ba muy jooy maanaam di rang di jënd li muy jaay ba muy jooy waaw te kat jaaykat ba am loolu waaw mu jënd ca kër tabax cay néeg jënd ca sareet buy indi marchandise ma mook moom rek ba kenn ne ko ne ko waaw yow diw lu xew mun na ko ñaanu ko suñu fàllu ko rek kee na ko def na xay di mu ne ko lu xew mu ne ko man ci yoon walaa ko sànni gëmu ko woon gëmu ko woon kon njabar am na alxuraan lii la ci wax njabar am na sunna si yonent ba lii la ci wax lan mooy àtteeg njabar njabar dafa xaraam jàngale ko dañ koy tere jàng ko dañ koy tere danañ ko nangul nag ku ne foo xam ne ña fa nekk dañoo baaxut te yàqi pas-pas ñu jàngal la ko ndax atakabburu ma al mutakabbirina ibada suñu cheikh ko doon wax suñu cheikh nee na boo fekkee ku bëri tiitar te nga xam ne boo tiitaroo tiitaram yàqu mu ne tiitarul atakabburu ma al mutakabbirina ibada kon foofu day dagan nga am sa doom ju jigéen mu topp waajoo xam ne amul solo ay jikkoom rafetut doxalinam baaxut te sa doom ji moom la nopp mu wóor ne bu sëyee du am wàlliwam léegi nee nañ nga jabar ko ba mu muññeeku dagan na waaw nga nga nga nga xon ko xon waaw que su boobaa li ngay kar daruura la a daruriyaat nag tubixul maxsuuraat nee nañ foofu baax na fi ay buntu na lag yu baree baree bari yooyu loolu lañ ci ubbi soo déggee ñu ne wa maa kafara suleymaanu li muy teg kon mooy ak njabar jàng ko weddi dafa yomb jëfandikoo ko weddi dafa yomb ndax dangay dem ba daanaka dafay jox deux plus deux égale quatre te su la joxee deux plus deux égale quatre nga gëmee ko noonu léegi tey ba muy tudd mu yàq fi nga dox jëm waaw nee nañu koo xam ne kii dangaa jabar nit te nëbbutuwoo ca xam le ne yaa ko def lislaam bu lay rey jaasi lay wut cor la ko rawatina bi nga waxee ne maa rey diw maa jabar diw maa ko rey rawatina bi nga waxee loolu comme danga wax ne yaa def njabar gi su boobaa dañuy jóg àtte la àtte bi lislaam mooy xaddu sayf dóor la jaasi defe naa jàngeen yéen ñëpp ci alquran wa min charri nafazaati fi l uqad waaw fi l uqad bu jaale ibnu abdallah nee na bi mu nekkee gouverneur ci basara muawiya ibn abi sufyaan def leen bindoon lettre booba nag njabar dafa bari jamono yooyu mu ne ku ngeen gis muy njabar di góor rey leen ngeen jabakat bu jigéen rey leen waaw uqtulu sa kulla saahirin wa saahira fu ngeen gisee jabarkat rek bu góor ak bu jigéen rey leen kon looloy atteb njabar mooy dafa xaraam ku koy def te def yëg ne yaay def lii da lay rey waaye mbokk ñun sunu réew ngay dem seen ca tele ba nit ku toog di woote na man na ko ñu koy seetaan kenn du wax dara nga ñëw ci tele bi daal di jënd benn temps danten fay sa deux cent mille ñu jox la trente minutes nga wax a wax a wax ba ñoom yi am ñu la ci gëm xëy di la seet ba ne jeef sa kër boo ci amee quarante personnes ku ne cinquante mille ñaata ngay am émission ba bénéfice nga ba jàll nga dem ci beneen télé wutaat uuti waat antenne temps d'antenne waaw danaay wax ne koo séen ca télé bi naan maama nangam mënut ku mën du publicité du yëgle mukk yàlla na nu yàlla dimbale bokk na ci lii wane ne jabar dafa xaraam mooy ba yonent bi wax na ijtanibu sab'a al mubixaat mu ne moytu leen juróom-ñaari yëf a ngi nii yoo xam ne ku ci jëf benn loo jëfaloon yàlla yàqu na juróom yëf yoo xam ne ku ci jëf benn loo jëfaloon yàlla loola yàqu na mi ngi mel léegi mu nga boobu kaas verre mu rëcc la toj ba mu koy lim mu tudd ca bokkaale jeexale ko ci njabar mu tudd ca bokkaale bokkaale mooy ku jël lu yàlla moom jox ko ku dul moom lu yàlla moom jox bokkaale moom rek la yàlla ni moom du ko baale moo tax Luqmaan ba mu xëyee naan naan di di waxtaan ak doom ja daf ne ko yaa bunayya mu ne ko la xew mu ne ko laa tushrik billaah lu mën a xew bul bokkaale yàlla inna shirka mu ne ko gis nga doom bokkaale la zulmun azim tooñ la gu moom du bakkaar mu ëpp bakkaar moo tax ngay dégg ci alxuraan ñu naan yàlla dana baale bakkaar yépp ba mu des bokkaale li muy tekk mooy bi mu ne bàkkaar yépp lépp dugg waaye bokkaale moom du bàkkaar la zulmun azim tooñ la vraiment tooñ la yàlla nee na <laughs> yéen ñi li ngeen tabe tabe tabe ñu naa mu ne ku ci nangoo bokk ak sa mbindaan sa poos mu ne kan ci yéen rek moo nangoo bokk ak mu poosam ana jan jigéen moo bëgg nangoo bokk ak mbindaanam posetam bu soxlaa jël boo soxlaa jël ah <laughs> waxuma la bokk sax waaye jigéen ñi si ne seen pochette yii ay boo ci ubbee benn carabinieri yi lañ wax de fii lañ lay fekk si waaw seen saag yi moom yaa quelque chose bàyyil nii rek mun a ñum waaye daal yàlla nee ne kenn nanguta bokk sa poos lu tax ngeen bëgg ma bokk li am bokkaale mbokk yi naka lañuy ñuy wooxe jinne ba boo ko santee mu def jabarkat jinne lay liggéeyloo jabarkat waaye jinne ji da koy bindal ay sart ma joxe benn misaal dangay takk jabar doxalub diir daadi ñaareel aawa bi daat lem ci benn sëriñu jabarkat ne ko takkal ma ko xala takkal ma sama jëkkër ji xala gallaay la tudd sant ndaw yaayam tudd mère biige jabarkat bi day fexe ba jinne ñëw jinne ji mi ngi tudd dux dux bu dux ñëwee tëral ko ay sartam mu ne ko dama bëgg diw doomi diw ak diw jëkkëru diw la ca biir tubéy ja na mel niw sagar mu ne ko loolu rek laa man imaam jàng na ci sóoratu nóor wa xul lil muminina yaxuddu min absaarihim lu mu ca teg wa yaxfasu gis nga fi fi fi bët nekk ak lam naan nga sàmm ko fam nekk yaxuddu wa yaxfadu ñu sajj seen xef ndax ñu mën a takk seen tubéy moo tax li ci biir tubéy ak bët dañoo ànd dafa am fil gu leen lënkale fiil gi nag lumière la lumière la moo tax nañ ma baal damay misaal boo xoolee koo koo koo nopp moom it suggul xanaa rekk mu mu xool rek ngeen di xool léegi tey tubéy ji am nu mu def am déet léegi nag jinne ji bu ñëwee ngir bëgg li ci biir tubéy ji mel niw sagar bi ngay xool dafa am ferñent yu jóge ci ku jigéen ki sa bët a koy aw benn borom xam-xam ñu wax Alex Carrel am na ñu ko fi lire peut-être l'homme est inconnu al insan zalika al majhul nee na lumière boobu bu ñëwee ci ku góor ki mooy tasaaroo ci yaramam mooy tax li ne ci biir tubéy ji yëkkati ko dux ko nag jinn ji day ñëw fi lumière bi déparé buy départ bu ci tafee loxoom lumière bi du génn bu génnut euh, cellule du ñëw bu ñëwut dara du fonctionner noonu nag la lay jàppoo rek loolu nag boo ci amee ñaari at sa sa sa seet tas am déet imaam Jaw bañ a tas te te mënoo gis jinne ci ba ko puusal fii mu lu doy waar la ci loolu noonu la gaa yi di indee jinne yi nag kaay defal ma nangam <coughs> mu ne boo ma defalee nangam ah ma defal la nangam am na ci bu ñu tuddee tariqatul iqsaam mooy jinne def naa la kaay nga ñëw mu ne la boo ma defalee nangam ma defal la nangam nga daal jël li ngay jël léeg-léeg mu nekk lu doy waar nga fekk jigéen mu gis baax nga jël deret da nga xam ne mooy dereti baax dara ciy bind faatiha allahu akbar allahu akbar waaw loolu ab jabarkat ñeme na ko ndax su ko defee rek jinne nangu koo jikkal su ko santee mu defal ko waaye loolu xam nga ko def mbokk yi ana sa diine bu ñaareel ba tariqatu daba mooy rendi mooy rendi jinne ji ne la rendil ma lu ma lay rendil léeg-léeg mu ne la nit nit waaw léeg-léeg mu ne la nag léeg-léeg mu ne bëy léeg-léeg mu ne xar dem ba ci ganaar moom daal nanga ren di nangam moom moo lay conditionné ça dépend ci li nga koy defloo moom jinn ji te yonent bi nee na ko rendil seytaane aw aw weñ aw weñ sa araam na sa aljanna aw weñ moo tax ah kon ki lay wax naan rendil nangam jar naa seet ba xam hmm? rendil nangam rek nga dem rendi jar naa seet jar naa seet ndax man dabaxa li gayrillaahi faqad ashraka ndax xar mi ngi tër di ko rendi daa am boroom bu dee xar mu jigéen am na jëkkër bu dee xar mu góor am na jabar am nay doom am déet léegi nga am jëkk nga am jabar ami doom dem ne ko deqi ren di war nga ko teg fu leer naññ sinon ba léegi da ko layoo la ma xale boo xawoon Kaolack ndeysaan bi may wax ba tudd loolu mu ne ma oustaz ndeke baaxuma boobu dama waxtaan ci wàllu ba ñëw ci tabaski kii jël am xaram ren di ko ba noppi ah jéggi ko fa dem defi li ñuy tere baar jot nga ne mukk tàkkusaan nangam nga ne mukk may da nga ëpp xar mi doole doom loolu lu am solo la beneen bi mooy bu ñu tuddee tariqa asufliya mooy yoon weneen yoon woo xam ne danga bëgg jigéen euh, euh, jinne ñëw nga jël kaamil bii ne ko pàcc ci digg bi jël benn xaaj bi def kow dàll jël benn xaaj bi def kow dàll départ si néeg ba ca toilette ya faj aaju del si ci néeg bi dina na la bon merci loo bëggati ma defal la ko mais ana sa diine mbokk yi xool leen kiy def loolu ak ki ko koy defloo ñoom ñaar li ñuy def ni mu garaawe am na beneen mooy an najaasa mooy jinne ji daf lay wax ne bëgg naa laa may xaalis mais nag foo toll da ngay ànd ak sobe nga ne ko ah mu ne maa la de booy dem toilette doo yóbbu ndox boo tuuree ndox doo yóbbu ndox booy dem jumaa doo jàpp waaw yaa moom rek waaw wuti jumaa pour ñu gis rek pour forme bi léegi nag saa boo def fii nii sa néeg rek xaax bi day tuur ni yaw rek waaye ana sa diine benn bi mooy tankiis mooy xam nga alxuraan dafa am bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alamin moom mu mu juutal mu juutal ko juutal fatiha ji ah léegi dootul teg fatiha waaw loolu jinne léeg-léeg mu ne boo ma ko defale ma jox la nangam waaw juróom bi mooy tanjiim mooy sa digganteeg bidiw yi sa digganteeg xam-xam nujoom yi mu wax la ne dat sàngam boo ca defee nangam ma defal la nangam nga dàkk dat ba ba mu ñëw nga def ko la ma ca doon sant mu daal lay wussi am na bu ñuy wax tariqatul kaf mooy da ngay ñëw ci waa ji mu la tàllal sa loxo nga tàllal muy wax ay baat muy wax ay baat euh, sëñ Omar ma le xam na sama yaay waaw góor waaw kay foofu lay toog waaw xam na sama yaay dama ma sa ñëw mu ne ma ginnaaw yaa ngi jàngale ba noppi amoo foo jàngalee dafa am benn sëriñ bu nekk ci kër gi ñu jàkkaar lool dégg naa ko man la kaa ñu dem fa man tam bëgg naa sama yaay yi gëm ne lii ak njabar la ma ne ko ñu dem mu dikk sëriñ ba ne ko jox ma fukk fukki dërëm sama yëkkati cinquante franc jox ko mu ne ko jox ko ko mu jox ma ko man sama yaay jox ma ko ma jox ko ko mu mu sànni ko ci kaw awaat ko moom moom bu xaaba bi da koy sànni awaat ko daal di may xool sama yaay ngi toog ñun ñett ñëpp mu ne ma tàllal sa loxo ma ne nii sama loxo mu fab loxoom teg ci fii daal teg ci rëdd wi teg ci rëdd wi ne ma yow de sa jabaru mag jii mooy li la gàllankoor sama yaay ngi toog ma ne ko man sama mag amul jabar de fii laa la koy wax mag amul jabar muy benn mun ma kon de sa jabaru rakk la waaye kii moom ñu ngi kër gi mën na ko sama rakk amul jabar man mii maa am jabar mu ne kon sa jabar ma ne ko xaaral mu woy ko sama yaay ne ma jërul wooyi ci kii kat li ma du dëgg <laughs> mu mucc ma mucc ah gis nga loolu bu la waxee nga ne waaw rek sa kër tas na xoolal keroog bu fekkoon sama mag dafa amoon jabara te xawuñoo juboo maag moom même bu ñu juboo ma yàqu waaye ca teel laa ko sama mag amul jabar de mu ne ma kon sa rakk la ma ne ko sama rakk amul jabar mu ngi ca man mii maa ko mu ne sa jabar la ma ne ko xaar mu woy ko léegi sama yaay ne ma jorlu woo mi mu waxu dëgg mbokk yi xool loxoom nit naan ko diw mii moo ko def ngeen di ànd guddeeg bëccëg nga tàmbali di ko daw waaw nga tàmbali di ko daw lu tax parce que sëriñ baa ma ko wax lu tax nga bëgg gëm waxi kii te gëmoo waxi sa àndandoo bi yu was wisu anamu yu was wisu fii su dóori naas yi donc loolu tarixatul kaf la beneen bi muy juróom-ñetteel bi mooy tarixatul asar asar mooy yët ma ca moom dara nga ne man damaa bëgg diw mii ñu daq ko ci palaasam bi mu ne la yëpp ma dàllu càmmooñam jël dàllu càmmooñ ba bind ca xaasa firaaxu bay ni bay ni ko léegi duutoo dem ca usine ba wala ca détat ba détat ngeen di wax de détat ba wala boo demee boo naan yun rek sa tànk bi newi boo ñibbee mu rees mm. boo ñëw rek sa tànk bi ne neweet booy dem muy rees jabarka daa ngi def loolu léeg-léeg mu ne man de as ndaw dama ko bëgg ma nga barab sàngam mu ne fexeel ba yët ma kawaram mbaa njiit laayam mu jël ñaar yooyu am num ko def moom it foo tëdd fu nekk sa xel maa ci ci kooku ñu la ko def moo tax ñuy bëgg nit watee fa mag ay yéree mag ay bare baree bari yoo xam ne nit da ko war di fonk boo demee Sénégal léeg-léeg nga dégg ñu ne jinne may mun a dafa dugg ci école ya wax nañ dëgg dégg naa sax ci biir liifar ni du dëgg ma ne dëgg la de parce que gone gu jigéen gu toll ci gis baax mu xam ne tey jii mën naa am fii ak 13 baax gi dana ñëw mu yóbbaale ñaari torsom à jeter ndax looloo xew léegi baax gi ñëw nga jël benn nga def cours yëg na war ngaa changer nga dem ci toilette yi changer couche bi nga defoon léegi au lieu nga def ko sa mbuus yóbbu seen kër déedéet pour yow lu salte la rek nga daal jël rek teg ca poubelle ba sànni ca mbalit ma mbalit moom nga ko sànni der ja ca taq ci la jinne yi di añ ca la ñuy reer ca la ñuy ndékki yow foo jëm mën na laa teg def biir buy métti ba yowmal xiyaam wala xeeti fibron yi wala yu bëree bëri yu muy def jigéen ñi lu koy waral mooy jànguloo fiq ci lay professeur bi lay jàngal jàngul fiq nga gis sa baax rek changé rek sànni booy fekk te loolu très dangereux loolu ñu tuddee al athar moo tax kon muy ñun ñëpp góor ak jigéen ku ci nekk loo jëfandikoo ti ba mu noppi sellal ko defar ko door ko wàcc bu dee jigéen pour pourquoi munu ko indi ci kër gi fóot ko ba mu set loolu moo daan xew bu njëkk léegi nag nu ma yàlla baal gone ndaw yi sax fi nekk booy dem ci xew yi nii da ngay rek ngeen dem 16 heures 17 heures 18 heures 19 heures vingt heures xale baa ngi couche bi rek lu mu soxla rek def ko ci day mu jàgg serveur xale bi ak kuusu xale bi jokkaloo bi doon am du amati ndax xam ngeen mbirum tuur ndox ak yooyu amaliya euh, amaliya la euh, xasabiya la mooy yuur gi mooy wax li ci tuba ji defal nangam mu def ko rek bu fekkee nag xale bi dañ koo def noonu day mu jàgg affaire bi day yàqu léegi nag day day dëgër bopp xale bi day mujj day dëgër bopp lu tax dafa yàgg a kuus ngeen baal ma yéen kuus mbokk ma ñëw ci jeexantal yi njabar di def ci nit jeexantal yi def ci nit un tafriqul azwaaj jabarkat day tas sëy waaw di tas ay àndandoo di def ay nit ñu bëggante woon ñu bañante jabarkat yaa ngi koy def xam nga ne bëgg sa jëkkër ndeysaan ba naan ko amoore amoore amoore ah ndeysaan fii laa ko déggee nag fii ci dëkk bi mu wàcc si rek mel ni du woon yow waaw mu si rek mel ni du yow jabarkat yee koy def léeg-léeg jinne ji mooy def ci sa jëkkër ji genn xet walla mu def ci jabar ji genn xet te nit munta jàkkaru nit ne ko da ngaa xasaw nit mënu ko da nga day gis sax ñu sa gémmiñ gi xeeñ na sa doomi ndey la koy wax ndax dafa jafe wax léegi nag sa jëkkër ña wàcc si rek am xet gune ci kër gi dérange la bu demee xet gi dem am na lu xew te mënu laa wax ne waaye najaay li ngay xeeñ nag li ngay xeeñ ne ko ta wax waaw wala li ngay xasaw léeg-léeg day jël sa image yu jëkkër def ko image bu bokkut teg bi nga xam walla nga xool sa jabar mu génn benn sell fii génn benn fii nga xool ko du mooyu xoolaat ko muy moom léegi yow mënoo ne sama jabar ji ki ma xoolal léegi du moom day mu yàgg daf lay indil léegi te nga tàmbulee génn ci mbedd bi wala ngay fanaan ci peron bi waaw nijaay lu xew nga ne ko dara dama xaw kii quoi fekk kii woo <laughs> jabarkat yee koy def ndax xam ngeen ne ñaar ñu bokk néeg nekk jëkk rek jabar ah foofu warta na xarikat kon bu naqaree am na lu xew jabarkat yee koy def waaw ñoo koy def de bokk ci li ñuy def rabtu rajul mooy li ma waxoon sànq takk xala góor léeg-léeg ñu takk xala jigéen góor waxoon naa ko sànq mooy dañuy fexe ba li ci tubay ji du taxaw bu dee jigéen dañuy fexe ba xelam du nekk ci bokk ak jëkkëram lal danay am di ko xam ne ki jëkkër ji rek la suur waaw te yéen bokk kër gi macha allah léeg ngay tëdd tëdd ak jóokin sol sab jóokin takkar moom ko bonne nuit Bwana note jëkkër ji teg la loxo nga ne damaa sonn walla ngay indi yeneen wax yoo xam ne day yàqu ay fekk jabarkat yee fa jaar waaw nit ay sant rek ne ko defal ma nangam diw mu defal ko kon ñoom bi ñuy tàq tasub sëy di yàq diggante noonu lañ mën takk góor xala noonu lañ mën takk jigéen xalaa moo tax sooy sooy sikki sàkk ndax ndaw sii dafa am faru rab walla déet ndax léeg-léeg ñoom jabarkat yi ñoo lay wutal faru rab boole la ak moom mu yëngal sa deret ji rek ngay mer rek nga xam ne doo ree doo kaf da nga naan këj rek lu ko def dañ laa affecté jënn jinne mu lay merloo su sa jëkkër xëyee liggéey man ngaa téléphoné teeg moom ba mu defee ne du yow wax ju correct wax ju jub wax ju neex macha allah mm-hmm. waaye bu ne asalaamaaleykum ci kër gi. nga ne kamaj loolu du tayeef moo tax léeg-léeg am période boo xam ne bii boo ko comprendre du ngeen ko romb da xam ni lii du tayeef boo laajee jigéen ñi léeg-léeg jigéen ëmb ba am ñetti weer dugg ñeenteel. seet gis jëkkër ji moom merci léegi nag boo comprendreul ba ngeen romb foofu lu mën na faa juddoo ñetteel ba ci li jabarkat yi def mooy yàqub ëmb isqaatul haml jabarkat yi mën na ñoo yàq ab ëmb allahu akbar yebal jinne mu avorté la waaw léeg-léeg gis jigéen joo xam ne day ndeysaan saa bu ëmbee balaa am ñaari weer rek tàqale ko moom am na ci ñu ci dul jaar waaye léeg-léeg jabarkat yi def ko di tuur ëmbi jàmbur yi rek yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci waaw waaw nga xam ne saa boo defee ne bii ñëw na tey toog rek mu dañ saa boo defee ne day toog rek mu dañ ndekete ab jabarkat moo fa jaar def la ko walla am na lu muy def muy rabtul arxaam maanaam bu ci tunjuyukaay bi lay yebal jinne mu tëj ko gis nga ni planique di def jigéen tëj ay bunti bu ci tunjurukaayam noonu la jinne ji moom tam di ko mane ngeen baal ma am na jigéen ñoo xam ne dañ koy def naan ay doom di naan ndax doo gisiti ëmb ñenn ñuy pikiru ci mbagg waaw ñenn ñuy pikiru ci mbagg bi dee doom yi saa boo jëlalee rek àdduna tukki ngay naan rek waaw doom yoo xam ne da ngay naan rek analyse euh, xaw ma xayma biñ ci mujj def ay 2016 mooy rey na ci àdduna si ñetti junni jigéen yoo xam ne naa naan doom pour bañ a ëmb moo leen rey ndax mbirum ëmb xam ngeen ne mbirum sunu borom la mm-hmm. tubaab bi nag mën naa fexe ba tëj bu ci tunjurukaay bi walla muy rey liy jóge ci sa jëkkër di ñëw ci yow wala mu fexe ba doo gis baax waaw yooyu yëpp macha allah jabarkat yaa ngi koy def danañu def it taatizul ma mabayd awil mubayd dafa am lu ñu tuddee ci jigéen bu wayda as nen lañ koy tuddee bu gisee baax ndax xam ngeen jigéen buy gis baax ween yi dañuy aylantoo weer wii di avril bu sa ween wii ayee bu avril jeexee mai ñëw sa ween wi mooy ayee bu gisee bu bu gisee baax toog ay fan deret ja jeex dafa am nen buy topp ca deret ja ween wi ayee moo koy joxe mu départ ci ween jëm si ci biti bu amee lu mat ñetti fan yoo xam ne jegewoo sa jëkkër jegewu la léegi nen ba day romb day dem ci biti ëmbulootul amati léegi nag jabarkat yi mën nañoo fexe ba nen boobu du am ñeebal jinne fa nen bay déparé mu ko yàq foofa nga toog ci séyéer lu yàgg yàgg yàgg gisoo doom nga dem ci docteur ba mu ne dara jot la ku góor ki mu ne dara jotu ko kon am na lu xew am na lu xew donte nag ñu góor ñi léeg-léeg koo ne kaay def analyse mu ne danga may fonto ay góor bala nga koo yóbbu mu def analyse ah xanaa fii boog waaye bu dee Dakar de non xaw ma nag fii ah ñeenteel ba ci li jabarkat yi def jigéen mooy fexe ba muy xëpp deret nga xam ne daanaka du set mukk te ku mel noonu jege jëkkëram du ko yomb moom it te ku am jëkkër doo ko jege saa su nekk a ah léegi tey am ku dem ndax xer ak sàkket jàppaloo rek mbaa xer daanu sàkket daanu mbaa sàkket daanu xer taxaw moo tax jabarkat yi léeg-léeg ñu jàpp jigéen yàq ko ci kaw day tuur deret rek day xëpp deret rek léeg-léeg ñu def ko su dawra lii loolu mooy faxe ba du gis far baax jigéen joo xam ne du gis régal benn yoon yii léeg-léeg nag mu nekk feebar waaye léeg-léeg njabaraankat yi ñoo koy def bi ci tegee muy juróomeel bi ci li jabarkat di def jigéen ñi mooy al uqm mooy fexe ba nga jaasir fexe ba nga jaasir mën nañoo fexe ba li sa jëkkër di def ci matière matière boobe ñu def ko ba mu néew doole ndax xam ngeen soo jëloon kaas bi li jóge ci góor nga def ko ci ba mu jël ci ñetti trait ñetti trait benn ñaar ñett li ci nekk ci doomi wallax njaan yi tax am doom fanweeri million lay doon ak lu topp fanweeri million ak lu topp waaye ñoom mën nañoo fexe ba fanweeri million topp doo am sax douze million te li fekk amoo fanweeri million ak lu topp am doom dalay jafe soo amee nag ay 10 millions kii ay 9 yom seen yom moom xel xalaatul ngay am doom te jabarkat yi mën nañ ko allahu akbar yii may lim yëpp nit ñaa ngi dem ci jabarkat yi di ko de def loo te li ci gën a métti kat mooy boo def loo boo def loo quinze mille la lay laaj <coughs> yàq dund ak nit ki ci quinze mille francs wala ab seeru dënk yàq dundu nit ci seerub dënk moo tax doo ñaare doo gis jabarkat mukk mu mu gaare kaat kaat wala moom kër gu baax fu mu dëkk bi ginnaaw subaa mu taxu di nit ñi rek te rek boo ca demee fi ne client jigéen ñoo ëpp yu góor yi jabarkat yi client yu jigéen ñoo ëpp foofu defal ma nangam defal ma nangam mos naa am sama benn xarit ma ñëw fekk ma luga ne dafay dégg ku mën a ku mën a gisaane mën na ko ko ma raw comme maag moom moo ñooy ànd mu ne waaye yow da ngaa xam dara mën ne ko asu ñu dem ma gunge ko mu jël wasiir ba ci buntu kër gi ma wàcc ci dugg góor gi kër gaa ngi fees del mm-hmm. ku ñëw da joxe ñaar fukk bu seetee ba noppi nga fay xaw ma 1500 xaw ma affaire yooyu birang bi guddee nag ma gis fa ñaari jigéen toog may leen kaay leen ku ngeen soxla ñu ne ma ñun de kii te dañoo ba dañ fee yàgg may leen ñëw leen li muy def nii loolu rekk laa jàng te kat dama bëgg a tappale ba ba mu leer leen kii day tappale loolu rekk laa bëggoon Seydina Ali ma daan ne jigéen ñëw leen ñu ñëw rek ma daan bind firaw na xam nga ñoom lañu firaw na gu ngande coppite ci dégg bi rek na la indi xaay bi ñu jox ma la ñuy joxe ndeysaan ma teg ca daal di xool kenn na ko yow loo joteeg sa tànta rek mu ne bëri ne këpp ca ka ja ne mu ngoog léegi man jàpp naa leen xaat ci loo joteeg sa tànta te waa ne jigéen ju nekk ak tàntaam ca Sénégal gee laaj leen ah loo jot ak sa tante mu ne ma mu ngoog waaw commencé léegi nag ma daal di jël benn affaire ne ko bàyyi leen xëccoo bale mu ne allahu akbar waa ji di ma xool xam nga lu ma def sama xarit ne ma kañ ñibbi ma ko doo xaar mu ne ma déet yow kay ko comme yow yaa mën a def yii nii may gis nii bu ma duggee fii nii dong la may def ma ne ko jeex na tàkk nan ñibbi yàlla xam na ko dafa génn a àdduna tuddee naa ko doom waaye gis nga jabarkat yi lii lépp ma doon lim nit ñaa ngi dem di leen ko sant fay leen as xaalis ñu defal la ko bu dee sunu réew yële da ngi joueur bu ay joueur bu aay ñu sëf la match bi ñëw nga yagar yagari rek ba match jeex fekk daa am ku la sëf mas naa toog ci barab jamonoy course dëggantaan ñoom benn laam ak fas yi ngeen xamoon course baa ngay xewee Kawlax ñun ñoo nga Louga ñoo werante ni génn góor ne man de bu ngeen ma indiloon sagar wu kenn woddootul fas sàngam danaa ko téye fii ma toog du daw te nam ko waxoon la ko defe fi nu toog mu daan nii dabar nuus mukk salima saa sa nuus tëb ba mu yàgg ñu ne ñu dégg ne fas sànga ma ngay soox ma ngay soox fi nu toog kenn mësul gis loolu jabaraankat yi noonu lañuy def mbokk yi bokk na ci la jabaraankat yi def almahabba mooy nit ku bañ nit ñu fexe ba nga bëgg ko waaw waaye su fekkee ne yow ndaw sii dangaa ñëw ne ko bëgg naa la bu la waxut maa la raw xanaa ne bëgguma la rikk waaye bàyyi ko fàtte dem seeti keneen bala ngaa dajal jigéen ñi am ku ne maa la fuuf maa la fuuf waaye déedéet da ngay dem ci waa ji mu yàqal xel mi bam jubu la nga denc ko comme soxna mu ne ci kër gi te te jabarkat bi moo jàpp am xelam bis bu xel mërëcee mu bëgg a tas dellu ci leneen te itam comme dañoo yàqum xelam toog ak sagoom sëy ba ami doom mën na koo jafe waxtu bi daa jege de waaw ma ma daani la kon seexarul mahabba mooy fexe ba waa ji bëgg lum bañoon wala mu topp la topp ko kenn du xam topp lan la loolu jabarkat yaa ngi koy def fexe ba seexarul mahabba wala seexaru tasxiir léeg-léeg ñu def ko nit ngay liggéey ci barab waa ji saa bu ñëwee lu mu la laaj rek nga jox ko lu mu la laaj rek nga jox ko day mu yàgg ñu dàqal sa barabu liggéeyukaay yàlla nu yàlla boole dimbale te leen seen baaram foofu mbokk yi ñu dem jooxe julli gi te ñëw yàlla nu yàlla boole sàmm te sàmm defar seeni mbir ak ci def suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilah yàlla yàlla boole nangul yàlla na ñu yéex a jullee bi ñuy toll ci julli ji maa ngi tolloon ci yi nga xam ne jabarkat yaa ngi koy def nit ñi ma limoon ci ne jabarkat daañ tas ab sëy di tas ak bokk danañu takk xala góor daañu takk xala jigéen danañu yàq ab ëmb ñu fexe ba doo ëmb mën nañoo fexe ba jigéen di xëpp deret fu mu tollu mën nañoo fexe ba jigéen jaasiir ma tolloon ci mën nañoo fexe ba nit bëgg kum bañoon bokk na ci ñuy def ñoom jabarkat yi mooy tasiwu suma maanaam fekk ku nit ñi xam jox la cër ñu añaan la cër boobu dem ci jabarkat mu yàq la ba ku la dégg ci na xanaa du diw cam léeg-léeg jabarkat yi def ko gis nit rek am na poste walla fi muy liggéeye kilifa gi fonk na ko walla li ngeen bokk feeñ na ci mbaa siiw na ca nga dem ci jabarkat fexe ba mu defal la waaju ba nga xam ne ku déggatiw turam rek na cim léeg-léeg ñu def ko yàlla ñu ci musal juróom-ñetteel bi danañu tàqale famille bu ànd rakk ak mag ànd ñu fexe ba ñuy xeex ak xuloo baay ak doom noonu ndey doom noonu am sa yaay du mooyu ko walla am sa doom mu du mooyu la te xamul xew mooy mën naa am <coughs> jabarkat yaa fa jaar jabar ko ba tàqale la si digganteeg moom léeg-léeg mu am bokk na ci ñuy def ñoom jabarkat yi mooy di métital ki nga xam ne moom lañuy ñuy jabar du nelaw mukk dañ lay teg métit boo xam ne doo nelaw mukk si yaram baa ngi diis mbaa muy xasan mbaa muy fet-fet yi wala ñu dugal la ngelaw loo xam ne day yéeg ci sa yaram wi di wàcc di war wari rek léeg-léeg jabarkat def ko nit wala ñu def la doo am appétit mukk doo am appétit mukk waaw léeg-léeg ñu def la da ngay jax-jaxi rek waswasa maanaam doo dugg ci dara mu àgg loo tàmbali tey bu subaa nga bàyyi ko dem tàmbali leen loo tàmbali tey bu subaa nga bàyyi ko dem tàmbali leen léeg-léeg jabarkat yi def ko luñ tuddee maradu maradu taraddud waaw am sa sab jeeg ñu def ko ko nga ñëw mu ne la na jaay dama bëggoon nga may ma lu ma jënde ab vax nga ne ko lu muy jar mu ne su ma amee quinze mille am ko nga yëkkati 15000 jox ko wàcc si mu ne la dooma ci tegal 5000 ma far am ci ab basin nga yëkkati 5000 teg ca daal di wàcc mooy la mënuma ci tegalub 5000 ndax ma am ci euh, ak cuub nga wàcc teg teg ca 5000 daal di wàcc mu ne la mënuma ci tegal beneen léegi nooy mujj def xam ne kii dañ koo jabar mm-hmm. yal na ko yàlla dimbale. léeg-léeg ñu tasaara sam xel sa à sa xel mi du fi nekk ba nga mën a jàpp dara loo jàpp ci su léegi nga bàyyi ko di fàtte rek léeg-léeg ñu def ko nga ne nga am dënn bu xat maanaam lu jar mer nga mer lu jarul mer nga mer lu jar xuloo nga xuloo lu ko jarul nga xuloo léeg-léeg jabarkat yi def ko ndax xam nga nit wax dëgg yàlla am léeg-léeg nga ne ko rek ah, jubanti sa dàll wi dong waaye nu jubanti rek dem waaye léeg-léeg mu jur xuloo léeg-léeg mu jur ashuur bil alam métit yoo du wax lu lay métti li lay métti mi ngi lay métti te a wax lu lay métti léeg-léeg jabarkat yi àgg ba ci rey léeg-léeg jabarkat yi àgg ba ci rey ndax ku yebal jinne mu jóg dugg ci nit téye ay dawukaayu deretam léegi tey mu faatu te yonent bi nee na ni ni seen deret di daw seen yaram noonu la jinne mën a dawe ci seen biir yaram bi léeg-léeg jabarkat yàq nit ba lum romb sàcc ko léeg-léeg jabarkat yàq nit ba lum romb sàcc ko léeg-léeg sax mu sàcc lu bëggut léeg-léeg mu sàcc lu mu waaye day sàcc rek ndeysaan ndekete dañ ko koo def ndax léeg-léeg nga jëlal koo xam ne kii kenn du ko jël mu dem def lay yëf loo rombati jël ko te kuy def loolu wax dëgg yàlla am léegi tey ñu gaañ la mbaa ñu def leneen jabarkat yi léeg-léeg ñu yàq commerce nit ngay jënd ka jaay mu dox ñu jaar fa yàqu xaajale la ak client yi kenn dootu la seet wala loo jaay mën a fa ñukk ñëpp na ko fa ñukk ñekk ba fa rox léeg-léeg jabarkat di def ko mbokk yi léeg-léeg jabarkat def lañu tuddee tax yib tax yib mooy li wolof naan naawtal naawtal la jël la ñuy jël yeew ko ci picc sànni ko mu dem nga dem réer say mbokk yow tam waaw adu yàgg-yàgg duñu xam foo nekk duñu xam ci loo nekk te sa xel du nekk ci dëpp ñibbi jabarkat yaa ngi koy def boo ko defee jigéen léeg-léeg ca benn ma lay nekk rek léeg ngeen romb ci Dakar xaw ma nag fii jigéen joo xam ne tabarkàlla mi ngi mel ni jigéen ñi waaye nag ma nga ca mbedd ma munta dem seen kër munta ñibbi dañ koo tax yib fukkeel bee ñeent li jabarkat yi def mooy a tax yiilu wa qadil uyun mooy fexe ba li ngay gis toujours du bokk li nit gis mën ngaa ne fii di gis ay affaire ngay wax ak ñoom waaw ndekete la ko def di coow ci kaw rek waaw defee na nit ñaa ngi li ngay gis fekk yu gisoo ko loolu nag mooy mën a yóbbu nit ci mu dem ca tëli ba di kar oto yi te gisul oto yi ñu dal ci kaw mu faatu loolu day am euh, nan la ñuy xamee ne kii dañ koo jabar benn saa boo gisee kuy jàmbat ci yaramam feebar bu dul feebaru loxo buy metti mba loxo ba dagg mbaa bët xanaa di jàmbat lu mu mënta wax lu mu doon nee ko dem faju ji nit koo xam ne kii mu ñaaral bi dafa jékki-jékki rek compliqué ba kenn mënu koo comprendre te liñ ko daan defal lépp ñu ngi koy defal te kenn mënu koo satisfaire léegi xamal ne ya quelque chose ñetteel ba koo xam ne loo ko fekk tey boo lëggee ci leen nga koy fekk maanaam kenn mënu koo comprendre loo ko fekk tey rek boo lëggee ci leen nga koy fekk loolu léegi teg jabarkat def ko nit nun la koy xamee bokk na ca euh, sori diine al bu'du an diin nit koo xam ne kii daawul jóg ci jàkk ji mu jékki-jékki kenn ko gis mu jékki kenn du ko gis koor daawu ko raw mu jékki-jékki tayal ca loolu tam nee nañ boo gisee ci ndi rek fajil ba ca teg mooy assudaaul mustamir nit koo xam ne kii boppam du sedd mukk bopp bi du sedd mukk way mocc yeeg aspirine yeeg yooyu mënul ci boppam bi dara taw taw rek bokk na ci aaraat yooyu bari bari gént xam nga gént lu normal la waaye koo xam ne bët bu set nga gént am na lu xew gént nag lu normal la ndax ci lal suma borom di wax ak nun alayhi salaam bu xëyaan buñ jullee fajar ba noppi day wax ne ana ko fi gént nga ne man mu ne loo gént nga wax keneen ne loo gént mu wax nee na su ci gént yi ci lay xam sunu mbir yi ci kanam programme yi ni muy demee gént lu am solo la ak nettali gaa ñi démb deux mille waaw deux mille benn jigéen dama woon na ma dama géntu ñett ñu toog kenn ka dem bàyyi fa ñaar ña ma ne ko bu dee ñuy politique de ka dem dana gañe yàlla def mu demee noonu mu ne ma dama amaat geneen gént dama gént ci ñuy politique ci dëkk bi di laaj communes yi muy local yi am picc naawe ca bopp ba dugg ci mboy gi man na ko bu bu demee élection dañ koy gañe dañ ko duur mu ne wax nga xay ndax moom laa àndal <laughs> waaye fu dama bëgg a wane rek ne gént moom lu normal la waaye nag bët bu set nga def ko diggante yi tëbi kàmb di lekk yàpp wu ñurut ah diggante di xuloo diggante yi daanu yooyu bu ci nit nekkee ci gént yooyu rek na xam ne am na lu xew bi ci tege mooy kasru taxallub wal xaraka mooy nit koo xam ne kii du toog xam nga fi ne bu ñu toogoon fii def fi baraade di def lëwal ak deuxième am na ñoo xam ne mënuñoo toog xaar nga def lëwal ñu naan deuxième ñu naan te du amul am na ñoo xam ne mënuñu ko booy lëwal ñu ne ma dem fii di ñëw baax seen a tépp ma dem fii di ñëw bu ak see deuxième ne ma dem fii di ñëw seetal baax a baax ma ñëw ci tomb bi ci mujj mooy nu ñuy dindee ak njabar nit ki jég nit ki yëg na ne dañ koo jabar ndax yii feeñ na ci moom mbaa mu yaakaar ko mbaa mu yaakaar ko léegi dafa am yooyu bu ko defee mën a génn ca njabar ga ba ca jiitu mooy aaru ci alxuraanul karim aaru ci alxuraanul karim gis nga jullit vingt yu ne boo xaajoon alxuraan sant xaaj war naa jël deux yu jàng ko chaque vingt quatre heures lu ko mooy ku la song jàpp la ah te itam mucc daf lay jafe kon suñ diggante ak alxuraan na nekk loo xam ne vingt quatre heures yu nekk ngeen am rendez yàgg moom soo ko munta jàng dee ko déglu soo ko mën déglu ci nit nii loolaa gën su munta nekk kaset yaa ngi fi audio yaa fi bi sax léeg-léeg ñu envoyé ci ay saayir alxuraan essentiel daal dee ko jàng alxuraan moom moo ay ci njabar moo ay ci jinne alayhi salaatu salaam daana wax ne dee leen jàng ci seen néeg yi suuratul baqara ak ali imran ndax ñoom ñaar dañoo tëj jabarkat yi ñoom ñaar dañoo të jabarkat yi alxuraan nag ginnaaw mooy li nuy aar bu nu ko soree rek na ci danger bu ñu ko soree rek na ci danger waaye toog lu ma weer te ubbiwoo kaamil jàng moo yor sa téléphone bi lu mat fukki fan juróom te defoo ci koraan bi ñooyam day fay kamaj ku la du la jot te doo mën a woote looloo tax sunu borom julli juróom mu dugalal ñu ci njàngam alxuraan mais loolu minimum la del yokk di jàng leneen yaatal sa alluwa boo mokkalut it ngeen am rendez-vous yaag alxuraanul karim am na ci nag ay saar spécial yoo xam ne ñoom ñoo gën a aay ci njabar ca la saad wal quraan bokk ca la wasaafaati bokk ca la xul oohiya bokk yooyu ci la ñu bokk kon nag di jàngal quraan mën naa tax a mucc ci ak njabar bu ñaareel bi ci ni ñuy njabar mooy saxoo laab saxoo laab fu sa njàpp toje jàppaatal fu sa njàpp tëje jàppaatal fu sangu war a ci yow sangul léeg-léeg ngis góor goo xam ne nañ ma baal nag ànd ak soxnaam ci guddi gi au lieu mu jóg sangu ji mu tëdd noonu jëmale ba set léegi yaa ngi ci danger bu rëy waaw danga war a jóg dem sangu ji ñëw tëddaat bu la soxna si soxlawaatee bu ngeen waxtaanee ñaar yoon nga dem sangu jiwaat ñëw tëddaat <laughs> waaw su fekkee sangu bi mun munta nekk minimum nga dem raxasu jàpp ñëw tëddaat mënuloo sangu mënuloo jàpp raxasul te tiim ñëw tëddaat mais ñett yi moom noo mën a def nanga ci def benn waaw sangu mbaa jàpp mbaa tiim ndax <laughs> soo ñëwee ci tali bi mu am tali bu jóge nii gàllang am bu jóge nii def nii alkaat yi nekk fa alkaati mooy wax ñii taxaw leen am déet ñii jóge nii ñii jóge nii yéen taxaw leen daal nit ñi yéen dem leen su paree ba mu yàgg nu muy def nit ñi taxaw leen daal nit ñi dem leen góor dafa am ñeenti ndox yuy génn ci moom man nga ne ndox yëpp nun la mel bii ak bii ak bii ak bii léegi nag ci naq dafe am koo xam ne kii mooy contrôler circulation boobu boo soxlaa tuur ndox mu ne ndox saw demal yaa war a dem soo soxlawul tuur ndox xanaa ak jote dafa am sa diggante soxna si mu ne mu ne ndox sa nga waay taxawal daal di ne mës yu yow tam taxawal daal ne wët yow tam taxawal daal di ne man yooyu yaa war a dem léegi su fekkee da ngaa séq ak sa jabar ba noppi nag tëdd nelaw moom policier boobu day am problème mooy moom kan lay wax moo war a dem comme daa am problème nag du wax kii demal du wax kii demal du waxul kenn demal loolu muy indi feebar bi ngay bi lay dal yow ay ata ngi ñëw da ngay tàmbali foo toog da ngay tuur ndox rek. lu tax police ba police ba moom nga yàqoon liggéeyam mu tax yonent bi kenn du moom yal na ko yàlla fayal mu ne sangul walla nga jàpp mbaa nga tiim loo ci def ñetti rek policier bi dana xam ne ndox sàngam moo war de mu ne ko demal yal na yàlla bëri dimbali kon saxoo laab ci la bokk waaye itam nga moytu jël dara ci sa càmmooñ bii lekkee ko ko mbaa nga naane ko sa càmmooñ bi lum dugal ci sa biir bi li feeg muy rees ku la liggéey jàpp la sa càmmooñ bii lum dugal ci sa biir bi li feeg muy rees ba dem ku la liggéey jàpp la waaw waaw nun jàpp nañ ne boo tiimee taabal ju am yàpp ak fourchette boo lekkewul goos eh, ak daqaar ga daqaar càmmoñ bi ngay jamee di sex te kat continuer waxtaan di dagge ndeyjoor bi te safaan bi war na am càmmoñ bi war na dagg peut ndeyjoor bi jël sex lekk càmmoñ moo kuy duble ci virage ligne continue ñoo yem très dangereux hmm? loolu am solo la kon saxoo laab bokk na ci lii tax nga mucc ñetteel ba zikr yi wird yi zikr yi ak wird yi zikr yi mooy li yonent bi alayhi salaam andi woon nun ñëpp nu bokk ko wird yi mooy li la sëb sëriñ jox waaw zikri yi mooy li yonent bi indi woon ñun ñëpp noo ko bokk ñun ñëpp ko bokk jàngal xuraan euh, subhanallah julli ci yonent bi yooy yëpp askar la ñun ñëpp a ko bokk wird nag dangay ñëw ci sa sëriñ mu ne la soo xëyee waxal dàngam bu ngoonee waxal nangam selon ci lim gis sa jikko ne ku la def loo nangam léegi tey nga tane ndax mag ñi da daan ñëw ci kër yendu fa ba ngoon jot ñu xam ne yow feebar sàngam moo la dal waaw la maam Cerno Birahim waxoon taalibeem ba Mbàkke man dama fee yàgg rek te kenn yeewuma fi la fi la ma diw fekk yewe nañ ko mu dem fi la ma diw fekk yewe nañ ko mu dem ba mu jeexalee maam Cerno Birahim ne ko dangaa am feebar bu naqaree faj mu ne ko ban feebar mu ne ko da ngay fayu yow lu la waay def nga fayu mun ne ko gin naa ci yàlla ne li tàmbalee tey ba amee sangoo suuf duutuma fayu mun ne ko taalal sa loxo dem ñibbi donc askar yeeg wirde yi boo ci dee jàpp jabar la du yomb nit day am zikr nit mën naa am wird bi ci mujj ci liy tax ku la jabar mu dañ mbaa duñ la mën a jàpp mooy sàmmoonteeg waxtuy julli juróom yi di julli julli juróom bokk na ci li li lay aar ba njabar la du yomb bu suba jotee nga def bu subaar jotee nga def bu taksan jotee nga def timis a gee noonu soo ko mënoon di dawal bala ngaa def ba defee ba noppi teg teg ci julli loolu daa bokk ci li lay aar ba kenn du la mën a jabar mbokk yi sunu bindu tey moo nekkoon njabar ak jabarkat yi yàlla nañ ci mucc nun nag noog yéen ñëpp te nu jële fi ne bu ñu ko dara jaral bu nu dara jaral mukk nu gis ku am dara nu dem ci nit sant ko lool day tàqale kii ak lim am yàlla mi may waa ji lam yor xaaja gut boo ne ko may ma li nga may waa ji mën na laa may lu gën lim may waa ji waaye nag dem toog ci barab nag naan nañ la ko defal nangam ndax mu ñàkk lii loolu ëpp naa def bu nu fi jóge ñu jàng ci ne doomu aadama bi ko yàlla bindee daf koo fonk te bëgg ko boo ko yàqalee mbindeefam tooñ nga ko dëkk bii de gis naa fi kër goo dugg ñaar li ci ci kër tubaab yi fekk fa ab xaj ay boo fi romb xaj jëlaw xeer na ko tépp man nga fee sonn boo ko filoon ci sa oto bi it ba moytuwul yaa xaj bi dangeen ngeen di mbarab waa léegi ndegam nit moo am ab xajam bindu ko xanaa def ko jënd baam jur la ko moo fonke nu yëfam nu ko raw la yàlla fonke nitam ñi bu nu fi jógee ku nobati jigéen te nobu la nee njoorawal jàmm seeti ba xam kenn la nobam déet waaye nag fokk ma def la nangam ndax nga nob ma ëpp naa def bu ñu fi jógee nit tase ci yow ab sëy nga nekko ko duma la jariñoo góor du la jariñoo daa dem ci jabarkat mu jabaral la ko muy xëpp dara fu mu toll loolu ëpp naa def kat nun ñëpp xëy benn bis dégg sa gil ndigaale ak kañ la ko def ndongal doon jàng fii léegi te doon jàngal arrahman allama alquran xéewal yi ñu yàlla defal ñun ñëpp ko bokk bokk na ca xalaqal insaan allamahul bayaan achamsu wal xamar bi xusbaan xéewal yooyu nan ko bokk nun ñëpp ku ci na yéene sa morom ci xéewal yi xaj nañ ci de xaj nañ ci de du dëgg kon nag bu ñu fi jógee ñu jël leçon yu am solo yooyu fexe ba mën a làqu ci alquran làqu ci sunu borom subhanahu wa waaye bañ a def kenn lenn ku dul def kenn lenn kenn mu laa def lenn waaye bis boo jógee bëgg a def kenn lenn illaa bis ni ji der day der ñëw te mooy yàlla seetaan la gaa yi te ku yàlla seetaan ku la song daan la mbokk yi loolu lañu indi woon tey ci sunu jataay bii nga xam ne tabaarakallaahu ay at a ngi nii nu koy àndandoo ak yéen di toog di jéem a fàttalikonte sunu diine fii nag ci Europe li wax mooy soo fi ñëwee boo ko mënoon waxtaan wi quarante cinq minutes képp lay jël li ci des lépp nekk laaj gi tontu incha allah laaj boo xam ne ñëw na te yomb dana ko tontu laaj bu jafee nag ma bind ko jox ko ñoom oustaz ñu ti dem ñibbi ah, su ma sañoon nit kale yee ma indi ak porta yee ma indi ku nekk jënd juróom waaw ku nekk jënd juróom mu daal jeex tàkk baa ngi ci biir mbokk mi da ko fàtte wax ci 8 giga lañ ko def bàqara ba naasi moom 15 euros lañ koy jaayee njaay mi nag du Alioune Sall menn mbokk ne ca Sénégal yal na ko yàlla fay Alioune njaay la tudd te daan def day ñëw ca daar ji indi fa saako ceeb mbaa ñaari saako benn bis mu ne ma damaa bëgg di génn ay calendrier ak i clé ak i porte-clé li ma koy génne bu ngeen koo ko jaayee mën naa am ngeen am ci dara boole marchandise bagage yépp jënd ceeb def ci daara ji su ko defee bu déwee ne ma génnewaat mooy def noonu moo tax nuy yor li nu yor nii waaye moom moo moom yooyu su ma àggee ne ko ba may dem yóbbu woon naa nangam nangama jar mi ngi nii mu seet nu mu koy def moo gaayu ko séq loolu la Cheikh Ibrahima mi doon jéem a junj bi mu koy jéem wax léegi ci biir yàlla na yàlla boole dimbale réew ma nag ñanga fa léeg-léeg nit ne ma jëlal sama terrain sàngam waaye dañ cey teg ne def ko daara damay am problème ndax man fi ne boo ma joxe boo ma joxee cinq euros ne ma jënd ci ndox ci poos bii laa koy def station bu mu njëkk jot te muy jaay ndox ma jënd ca ndox su ma naanee la ca sama ci parce que yaa ne ma am jënd ci ndox léeg-léeg Sénégal am ku ne ma cinquante cinquante mille nii jënd ci gasoil station bu mu njëkk ko jot ne ko solal ma cinquante mille lu ma ne ko waa ji moo ne man naa ci jënd gasoil su fekkoon damaa jox nag ne ciel lu ma neex jënde am de terrain yeeg ku ma joxoonum terrain ne ma def naa ko ci daara ji yàlla xam na am naa ci fukki terrain ñeent benn ci pare quatorze terrain wala boog ñaar ci pare muy daar cubb ak seew xaay yi ci des yëpp ma nga ne ñum lu tax am def ko daara ma def ko daara waaye bon am rek def ci daara ji dama koy jaay bu ma quatorze terrain su ma jaayoon dix yi ñaari daara tax wala ñett donc loolu mooy mbir mi yàlla na yàlla boole sàmm defal ñu tawfiix yàlla nañ fi toog bu déwénee bu ñuy ñëw yàlla bu kenn manqué yàlla na yàlla faj aajo yi saafara jàngoro yi def ci poche yi dara kon nag dese nañu quelques minutes wala une heure de temps laaj yaa ngi noonu ba bu yombee daal ma tontu ba jëfe ma bindu jox oustaz yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rabbi ya ahmadu ala muhammadi hali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu ala muhammadi hali xayru salawaati samadi